gisoon ci jikko yi gisoon ci ràbbaloo gi gisoon ci dimbalante gi gisoon ci lëngoo bi gisoon ci yëg ne bokk nga gisoon ci dinamik bi am ci mujtama di xew ak xew wi gisoon ci démb ñëkkati jataay bi culture walla saqaafa xaasa loolu la ñuy continuer incha allah ci beneen tomb bu am solo bu ci tege professeur muy taqsimul amal bi xasabil kifaat wala kafaat am penc dafa am lu am solo lu ciy nekk yoo xam ne dañ koy séddale dañuy séddale liggéey bi ñi wër pénc mi loolu nag farata cim pénc farata cim pénc ñu xàmmee compétence yi ku ci nekk ñu teg ko fam ma ne jaawale rôle yi day yàq penc mi xàmmee rôle ya ku ci nekk li nga man day jagal réew mi <clears throat> nanu tàmbalee ci am réew sunu borom day bind aw góor aku jigéen bu nu defloo jigéen ñi rôlu góor ñi duñ dem bu defloo góor ñi rôlu jigéen ñi duñu dem bu ñu defloo mag ñi rôlu ndaw ñi duñu dem bu ñu def loo ndaw ñu rôlu mag ñi du ñu dem te loolu daa am solo ci mu pénc mooy compétence yi dafa bokk ci li al ustaas ahmed daam yaay di tuddee intilaaqul iqtisaad al islaami nee na bokk na ci tomb yooyu mooy séddale compétence yi <clears throat> ku ne fam ma ne ñu teg ko fa ku ne fam mën ñu teg ko fa waaw Haj Malik Maodo Maodo Faye bu Sud FM mooy wax ne waa juy def lu mënut ñoo koy seetaan yi njëkk sonn <laughs> waa juy def lu mënut ñoo koy seetaan yi njëkk sonn gis nga yooyu nun sunum penc bi fi bi fi politique xewee lañ tàmbalee ñàkk loolu nga xam ne kii dañ koy fal ñépp xam ne mënu ko faluñu ko it ndax mu def ko day boroom mbooloo ñu fal ko ndax yaakaar mbooloo moom ci ginnaaw ëllëg ñu indi dara gis nga yooyu lu jara bàyyi xel la mooy compétence yi waaw compétence yi réew bu ñu dajee ñu bare ngi ci biir tey bu ñuy bu ñuy julli sunu borom daf ñuy sant ñuy julli kim yónni woon sant ñu ñuy def jullik mbooloo <clears throat> jullik mbooloo ñu ne hayya ala salaa ñëw leen ngeen julli si ñëw leen ngeen julli si gis nga jàkka joo xam ne saa bu ñu wootee mu fees saa buñ wootee jàkka ji fees bu rajoy jàkka ji paane am na ci biir mbooloo mi koo xam ne loolu la jàng ma wax la ko tey bu jàkka ji feesee euh, am làmp bu burle am na ci biir mbooloo mi ko xam ne làmp bu burle rekk la ay bu jàkka ji dee fees bët bu set am ku ñëw indi ordonnance su deux mille cinq cents am na ci mbooloo mi koo xam ne kii ñetti deux mille cinq mën na koo génne bi mu julli sax indiwaale na ko bu jàkk ji feesee ñépp a ci biir jàkk ji malheureusement suñ jàkk yi du fees malheureusement suñ jàkk du fees <coughs> waaw kenn mësu koo gis rek suñ jàkk yi du fees waaw yal na yàlla yërëm ma ne compétence yow ci ci ci biir jàkk ji daf ciy feeñ boo génnee jàkk ji ñëw ci commune bi def ciy feeñ quartier bi boo ñëw ci quartier bi boole quartier mu nekk commune def ciy feeñ département bi arrondissement bi région bi nga ñëw ci réew mi waaw ku ne ci réew mi wax la ko tey man léeg-léeg ma romb mel ni pénc xale yi def ay dessin yoo xam ne lii jaroon na ministre bi yor wàllu culture jaroon na mu exploiter lii même bu leen dessiné wu loowut lu mel nii ñoom seen compétence ci wàllu dessin waruñu ko bàyyi mu naax saay mukk xale yaa ngi defar ay yëf yoo xam ne kenn mën la ko mën la ko wax ma ne boo ñëwee sunum pénc da ngay gis ku ñu jox ak ministère ministère maanaam tey ku ñu jox ministère bu dee ci wàllu mbay bu dul baykat ñu ngay teg suñu loxo fuñ ko war teg kere bu yuusuf ak see misra ñëw kër azizu misra la fa xew xew fi bañ na ko ca kaso ba raw bañ na ko ca kaso ba raw a ah, am na fab diir nekk faa ku gaay waaye ñaar ca gën a ràññeeku bët bu sëñ ñëw posé ko question wala nettali ko gént ana Yuusuf ma nga ca kaso ba ku ko tëjlu jabari buur bi sunu borom tabaaraka wa taala bëgg a wan waa Égypte ne leen tëj ngeen koo xam ne kii kaso bi du palaasam léeg-léeg nga dégg ko ci gaa yi koo xam ne kii kaso bi du palaasam waaw tey dugg fa ci tooñ dañ koo tuumaal ak tooñ tëj ko waaw kon gaaw a àttee tax ñu xam lu mu ma ne buur bi gént gént goo xam ne gii kudul dul ko ca kaso ba mënu ko firi li muy tekki kon mooy kaso ba du palaasam ay pexe ko fa dugal wuru fa dugg waaw wuru fa dugg gént gi buur bi gént nag kudul dul ka ca kaso ba mënu ko firi mu yuusuf maa la ko wax ñu woo borom xam-xam ya woo ustaas ya woo ilimaan ya woo islamologue ya waaw woo ñépp ñu jox ko ngànt noonu mënuñoo firi gént gii te kat danoo mën a firi gént bañ xam ñooy ñan waaye gént tey gi moom laaj ko Abubakar ni ba tabarkal yàlla na ko yàlla yokku wér TFM gént gii kenn képp a ko muy firi te mañ ca kaso waaye bu nekkoon ca kaso ba te information waxu mën naa firi gént génnut duñ ko xam cey jàlla jëlalu ma tax ko muy wamat fu mu la jaari leen nangul te defar jikko yi jiwoog suñuy bokk sunu boroom kaso ba bari na ay nit waaye ñaar jege nañu Yuusuf ñu àtte rey kenn ka bàyyi fa kenn ka kañ fa bàyyi nag bi mu déggee gént gi ñu naan mën nañ ko fireek mënuñu ko fireek def nañ daje waaw euh, islamologue yi daje nañu ci waxin nag waaw ci waxin ñuy jàngale waaw yi daje nañu ilimaan yi nangam gént ko di tënati ci moom yuusufa firil na ko gént wan na ko ay yëf ndax dañ daan xëy rek Yuusuf ne tey de supp kànja la ñuy añee <laughs> ñu jékki-jékki rek ubbi ndab li muy supp kànja mu ne waaw mu ne amaa leen ko wax xam ngeen suba li ñuy ndekkee ñu ne déedéet mu ne pooji ganaar <laughs> rek tubaarkàlla waaye kere bi ñaar ña géntee ba mu firil leen ko mu mu nekk exact na leen ko firile kii bi mu déggee information gént gi ne gént gi naa def na leen man de bu ngeen ma yebalee mën naa leen ko firi déet waay mu ni maa leen ko wax ak fa mu jaar fépp ci nettali ba mu ñëwee ci kaso ba ne ko Yuusuf ayyuha siddiq ndeysaan Yuusuf yow mi nga xam ne bokk naa ak yow kaso bi bu ñu fi génn musuma dégg nga fen waaw musuma dégg nga caalit musuma dégg nga jooy xiif am na lu xew ci pénc mi yow mii laa yaakaar na yow képp ci man dara mooy buur bi daa lii ak lii ak lii mu ne ko boo demee nee ko gént lii la ak lii ak lii mu firi ko rek gént gi yenu maanaa buur bi ne dem leen jëli ko Yuusuf ne déet kon day yomb kon day yomb dem la jëli ko rek kon day yomb gént gi daal mën naa ko firi ndax dafa ajoo ci mbirum état waaw mën naa ko firi liñ bokk ñun ñëpp ci la gént gi jëm waaye en tant que sama jëmm ji nag du génn te lañ ma tuumaaloon sidut mbaa mu nekk dëgg fa mujj mooy yuusuf ñëw ca pénc ma ñëw ca buur ba buur ba proposé ko ay poste yor nañ fi nangami ministère bu la ci neex tànnal waaw yor nañ nangami ministère bu la ci neex tànnal ma ne boo ñëw ci compétence kon Yuusufa daa wane ne daf ne ko ijaal nii ala xazainil ard man mu ne am mu ne ko agriculture laa jàng loolu kon gis nga compétence boobu Yuusufa ne foofu mooy lam jàng la wax na nañ ko ko jox nun nag sunu penc léeg-léeg ñu fal koo xam ne xam nañu ne kii liñ ko fël nii mënu ko dulum jàng du compétence am mais nag am na base politique léeg-léeg ñu teggee kenn fu fuñ ko teg ñëpp xam ne kii fi ñu ko teg mën na ko ñu tegg ko malheureusement wala boog malgré lu tax ñu koy teggi mooy parce que amul base politique moo tax pénc mi euh, gis nga ko kon loolu nga xam ne mooy taqsimul amal te mooy séddale taas yi ku ci nekk ci sa compétence ñu fekk la ca ma ne bu comme réew di doxe lee mu dox bu comme penc di doxe lee mu dox waaw diwa ma nangam nañ ko ko def fii ne boo demee ci sunu mag ñi seen suñu suñu tarixa yi suñu tarixa yi ki nekk xalifa yii boo ñëwee ci tarixa bi dangay fekk fekk taqsimul amal nga dégg ñu ne diw mii lañ si lañ dénk mbirum njàng mi diw mii lañ dënk mbirum nàngam diw mii lañ dénk mbirum nàngam ba lépp jeex ñu ne kii nag mooy alxalifatul am kër yi kër gu nekk da nga fay fekk xalifa kër diw xalifab kër kër diw ba àgg jël ndigal ci alxalifatul am di ko tasaar ci alxulafaa waaw mu nekk loolu mel ni penc moo xam ne noonu yonent bi defoon ca Madina eh, taxaw fa daw la noonu la noonu la pénc ci tariqa yi mel yal na yàlla sàmm sàmm nu sàmmal ñu leen waaw sunu magi réew mi kenn du ñoom waaw <laughs> ma wax la ko tey kenn du ñoom waaw loolu nag mbokk yi compétence yi mooy tax mooy jur taqaddumul mujtama iqtisadiyan compétence yi mooy tax économie penc mi dox waaw séddale compétence yi mooy tax koom-koomu réew mi dox hmm? waaw ku ci ne nekk foo man ku ci nekk nekk foom man waaw ñu ñu def loola loo man bi la def loo loo mënut nga wane ne mënuma ko waaw bi yàlla naree wàcc doomu aadama ci kaw suuf malaaka def nañ woon ki nga fay wàcc mënu ko nun ñoo ko man mu ne ah li ma xam de xamuleen ko man de xam naa ne mën na ko tabarkalla daal di wane yu xam ne ba ko malaaka gisee xam na ne effectivement kii mën na ko euh, ci wàllu compétence yi ci la penc mi ame lu ñuy wax tajrib tajrib turux jadida mooy nit ko toog competence sa may ko mu créer dara ibda loolu ñu tuddee ibida compétence am may ko mu créer dara euh, mbokk mu ñuy wax Boubacar jàlloo def naa léegi mi ngi ci i i rajo yàlla na ko yàlla yokk wér ci koor gi dañoo am jataay boo xam ne tabarkalla bu am solo laaj ba jëmoon ci laaj ba jëmoon ci sallallahu alayhi wa sallam nu mu daan créer la gone yi métier waaw laaj bu rëy waaw Boubacar Diallo nu ko laajoon <laughs> penc mi am na weneen tur bu ñu ko woo xam ne <laughs> ba ñu dajee France maak <laughs> maak moom waxtaanoon nañ ci yàlla na ko yàlla yokk wér waaye laaju Boubacar Diallo boobu mooy nan lay yonent bi daan créer métier et est-ce que daana ko créer ma ne ko laaj nga laaj bu jar may la bëy door laa tontu mu ne ma indi misaal mu ne ko sallallahu alayhi wa daa toog ca jàkka ja daa toog ca jàkka ja naka ñu sëlmal am ku jóg ni ñu koy defe ci jàkk yu bari am ku jóg ni ñu koy defe ci jàkk yu bari daal di nuyu mbokk yi kër ga dara nekku fa ki yàlla yónni woon toog di ko xool mu tàllal loxoom kër ga dara nekku fa am ku ca teg kër ga dara nekku fa am ku ca teg tabarkàlla ba boo xoolee waa ji am na trois mille francs alayhi salaatu salaam daal di fott su mu xool ko mu woo ko jàkk jëpp ngi toog waaw mu ne waa ji toogal mu toog mu ne ko am nga jabar mu ne ko waaw mu ne ko mille francs yi tegal ma ko ci loxoom dégg nga mu ne waaw mu ne ko mille francs yi def ko ci sa poos mu dese mille mu ne Seydina Ali mu ne ko labbay ko mu ne ko kaay dem ca marché bi wutal ma fa ak buum waaw ak xepp mu dul ko buum ak xepp mu ñëw jox ko waa ji alayhi salaam jox ko waa ji ne ko acca demal nga taxani fii ba bis bi delsi nag bu ma la gis ci dëkk bi waa ji dem ci àll ba di taxan di jóor di taxan di jóor taxan di jóor ba ñu ne suba la ajjuma mu ne jeef taxani nga ba ñëw waaw ana matt ma ma nga nële yonent bi keryal ko marché <laughs> sallallahu alayhi daal saaba yi ku ci soxla matt am ko yëkkati na man de soxla naa njëgu téeméer kenn man de naa njëgu téeméer juróom fukk kenn man de naa njëgu nangam bi mu jaayee matt ma ma noppi bu njëkk trois mille la amoon tey mi mille sept mille cinq cent alayhi ne ko bu lii dana tax ku la war a ormal ormal la ku lay respecté respecte la na nga doon def bu njëkk nag ku la war a teeb sax dana la yab ne ko xëy taxani moo gën xëy laaj yi mbokk yi loolu ci compétence yi mooy jural nit ñu ker lu lu mel noonu tey C3S mi kaar-kaar 3 mi nga xam ne miin ngeen ko ci jataay yi yaakaar naa sax ñu ëpp ci yéen bu nu xëyee fa ñuy jëm bu ñuy jënd aluminium ak yu ne demee région boo dem ma nga fa fa ñuy dem tabarkàlla bu dee ci dakaar gi noonu mbokk mu woon ma ne ma fu sa yu nekk <laughs> fu sa yu nekk waaw mu ngoog mbokk mi moom tam ci wàllu lob boobu maam jaara yi may wax ni nag li tax ma di ko wax mooy ñoom ñi ngi ci biir émission yi te koy xalam di ca jaayu waaw te koy xalam di ca jaayu lobb maam jaara soxna sa di wër di wër lobb di wër gaas sax Alioune ndeysaan ba tisbaar jot mu door bu ma woo téléphone ne ma man ko damay wër sa gaas bi waaye dafa mel ni amul yëmbal ma ne ko lu <laughs> bi tudd mu ni ma gaas Alioune Sall bi ñuy wax ci rajo bi mën ne ko <laughs> dee daal di koy jox tuuru gaas ba lobb maam jaara ndeysaan ñi ñooñu ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci pinc mi bu ñu joxee compétence yi mooy jur ah natiija boo xam ne bi fursa tajri bi turuq jadida lay lay indil mooy créer leneen lu bees waaw mooy indi it maharat muxtalifa waaw maharat muxtalifa tey marché alisé boo fa demee am na ñoo xam ne mosuñoo dem Chine ba Japon te ña ngay defar ay ay ay ay portable bu sa portable feebaree boo lu ko yëtee bu subaa ko jël see mu mel ni portable yépp tabaarkàlla ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci pénc mi ku ci nekk ñu jox ko lam ca yayoo waaw lam ca yayoo wala cest à compétence moom ca am <clears throat> loolu ci pénc daa war a am démocratie doxal ko transparence doxal ko ku ci nekk ñu teg la fa nga war a tege waaye loolu loolu euh, député yi di def ñu di ko def mooy nattal ab ministre li war a liggéeyee waaye bu dewee ni nag bala koo kenn nattal nan xool lañ ko nattaloon daaw fum ko dugal ak nu mu ko def cour de comptes defe naa moom moo la ñuy wax waaye député seen bopp war na leen may sañ-sañu ñu ñu ñu wax loolu waaye buñ def mukk penc mi boo ne diw jël na fukki dërëm ñu ne la yow dàq nañ la déedéet dañu seet ba xam li nga wax noonu la am déet li nga wax bu dee noonu kenn waru la dàq yow dañ laa war a neexal dàq kee penc noonu lay doxe bu doxewul noonu rek mu daal di jur kumba am ndey kumba amul ndey wala wate taxas wet te su boobaa ñéppay sonn kiñ ko defal bisa ngi ñëw dana sonn ki ko defal dana sonn ñun ñi dëkk penc mi tam nu sonn mbokk bind bi jeexut yàlla mayoon du nu ba ëllëg danañ indi lu ñu tuddee anwaaul mujtamaat maanaam xeeti penc yi incha allah sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yàlla yàlla seen seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi